mais mairie bu Kër Massar ki nga xamante daa daa ñëw daal di woote résistance buntu këram a nga fees dell moom xool na ko ci caméra surveillance ba gis ni àgg àgg ko te dem kaso ngi wër-wër loo ci mbedd yi. non te noonu bii nag xamal naa la yaa gis hmm. moom du problème. du problème kenn ku nekk jàpp nga ni balaa ah, ah, kenn ku ne mën ngaa xëy dem kaso fi mu ne nii. Hmm. dem kaso daa dépendrewul ci def ak ñàkk def. waaw hmm. oui bàyyi san loolu dépendrewul ci dem kaso dépendrewul ci def ak ñàkk def waaw boo xoolee xam nga lu fi dem kaso nekk. Hmm? mooy wuuteeg Macky Sall ay xalaat ku ko def dem prison. Hmm. ku wuuteeg Macky Sall ay xalaat boo ko siiwalee dem prison man maa la wax di ko répété waat ne Ousmane Sonko bis bu toogee di déglu ñu naan ko wooteel jàmm ba mu wuy ji jàmm. Hmm. barke sëñ Touba dana dugg ko. man maa la sama kilim képp laa bu fayoon ma sens ko ngir bëgg la sa bopp. kon daal bu mu fi wootee jàmm ak yooyu. daa daa yorut jàmm bay woote jàmm xam nga ko weer jàmm ji hmm. man benn baat rek li waa Quraysh waxoon yonte bi hmm. yonte bi dañ ko ne dañ laa bëgg a jox suñuy doom nga ëppale ñuy jox la suñuy alal jox la suñuy jigéen nga dàqale fi ëppale fi alal hmm. boo defee nga bàyyi li ngay woote mu ne benn baat laa leen ñaan ngeen may ma ko bu ko defee ma bàyyi lii lépp ngeen di wax ñu ne ko lan mu ne leen taxaalaw ila kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'budu illa allah laa ilaha illa allah képp laa ñaan may leen ma ko rek ñun benn baat lay ñaan Macky Sall bu ñu ko mayee lépp daanañ ko teg ci suuf mooy ban baat mooy duma candidat duma candidat loolu rek lañ koy ñaan waaw duma candidat gi mën naa nekk mais si kaw Ousmane Sonko ñàkk nekk candidat moom kay ànd ak Ousmane Sonko dem wala ànd ak Ousmane Sonko toog loolu moom Sénégal gépp xam nañ ko ndax wóolu wuta bàyyi fii kenn ak Ousmane Sonko. ah léegi moom ci ay bëgg-bëggam na jaar leen ci ci yoon wi yoon tëral ci a jaar. Hmm. yoon wi yoon mooy Macky ñaari mandat am na ko daa war a dem yoonam daa war a dem yoonam bàyyi noog sunum réew. Hmm. beneen ba ca dolli ko mooy jëmmi Macky jëmmi Ousmane Sonko yoon yoon tëral mooy daa war a doon candidat amul lu ko empêche amul problème ak constitution problème institution wéeru di wut te dégg nay tubaab. mais moom ko am na 35 pour mën a nekk candidat. problème boobu la ko bëgg a wutal. waaw ah, problème boobu la ko bëgg a wutal problème yooyu nag kenn ko wutal nit xam nga nu muy demee. Hmm. problème ci nit lay gaar. gaar gi mu ko gaar constitution bi xam ne euh, loi xam ne kii def na dut yoon ñu yut ko loi loi teg ci moom loi mm-hmm. waaw kooku kenn du wutal kenn kooku luy gaar nit ki la ciy jëfam wala ay waxam mm-hmm. loolu rek la léegi gisee kii bu fekkee yàlla dogal na mu mucc si Adji Sarr bi mm-hmm. yàlla si Mame Mbaye Niang penante bi doit APR kii mu mucc si ñu ne résistance bi mu wootee ba waral lii yëpp mu yàlla dogal mu mucc si bu àggee paranaas ñu sepp si ni ko kat ay la yéwén sa parrainage bi baaxul mhm. te yosam daana baax tey nag baaxul mhm. comme nañ ko daan defee Idriss Seck ñëw na ba egsi basam baaxut mu dem mhm. wutiwaat Bougane Gueye ñëw na ba tàyyi ñu ne ko da ngaa ëppal ak nàngam mu daal di génn ak ah. ñan kii ñëpp bu ñu ko defee Ousmane Sonko mu ñàkk doon candidat ndax su boobaa xel lu si xel di wax sax laay wax li ci xel di wax mooy hmm. ñi nga tudd ñëpp da ngaa tëkk ñu bokkul ci waxtu wii nu toll Bougane Gueye mi ngay tudd tudd Idriss non dama ni. Ah, waaw am nga indi nekk sax règlement xam nga rek ah, ah. dama ne indi sa yëf. Hmm. si règlement bi ñoom ñi koy saytu. Hmm. am nañ droit saytu ko ni la yow sa bos baaxut bokkoo. waaw Ousmane Sonko ci boppam. boppam daa mënut a ñàkk a baax. ndax xam nga lu muy. lu tax li tax mooy xam nga parrainage nan lañ koy saytoo. Hmm. mooy ndax am nga militant yu la parrainé baax man Ousmane Sonko lim am ci ay parrainage am ci koy ay militant mën naa parrainé moo leen ko bëgg a nekk candidat say parrainage du am problème waaw parce que loolu du problème parrainage loolu problème ay at la nit ku waroon a am ay ay at pour war a nekk candidat te loolu la problème boobu la sew sew yooyu mënu ko waaw dafa bokkul ak parrainage boobu booba mbooloo woon mu seq yi fi mbooloo di ko doxal hmm. lii nag kenn nit lay doon li ñu koy laaj du dara yii ndax am na 35 ans am na comme Ousmane Sonko leer nañu ndax dégg na tubaab dégg na tubaab leer nañu ndax maanaam euh, amul problème ak justice ba justice condamné nañ ko na ko ko am gum am hmm. moo ko gën a wér te ma ko yaakaaru loolu kay bu ci desoon rek hmm. moo ko alxuraan laa yemale am na solo mi ngi noonu